beautiful football bole wuñu day anda ak xaleel yaa bokka daara bokkaam doon ànd ak suma caati maam yi ñu doon biri mu doon Hill Street daara Serigne Samba Diaw suñ Serigne today ko tuddee biiri Gambia moom dañ unfortunate because ñun biñ dee écouté nit ki football Africa Mui biri jamono moom lañ njëkk a ooyee Pelé gannaaw Pelé sénégalais yi ñoo ko ko tuddee ku ñoo wax alu moo ko njëkk a tuddee Pelé petit Pelé Pelé du Gambie Pelé bu ndaw ca biir Sénégal Ndakaaru Njaay ki daaxoon football Africa biiri la tudda mooy Alaaji Njaay biiri biiri dina play fort dina play midfield dina play defense moo noon dañu winal waaye soo gisee duñ daan mën win wul ko ko win su affaire bi ñaangee def day wàcca play ji defense nain bay wàcca dem play ji defense loolu mau kau daan dal di ko kau ko ko win fu defense bi peeraan mau mu kaa wàcca moom sekkale affaire bi suite ko biiri balaa moo leen wàlle daal am na téemi mu jaar biiri play na moom balaa gayam la xale yu bëri xamuñ tiim yooyu daya daan moo mujjee biir ñun ñoo ko féetee mag waaye moo ñu njëkk a play ñu ñeme ñu moom moom dafa dëgëroon boppam boo football dafa àndoon at bañ te ak sëriñtu yu bëri ñiir yu bëri ñu loolu ñu ñu woon involve ku mel ni biir ku mel ni Yaxya Si yaxu ñu ko way yaxu ñun ñoo daan toog yu senta ko Allen street bo yiri man ma ko njega yo kombo nawetan mo fuleje nawetan 1967 man ma ngi dega sere ko nda the player heroes dañ fam team heroes of Josuang ñu Josuang ñoom oje ñooy Rockefellers ñoom jumaye ñooy Kamas njóobeen ca jumaa ja am sere kuna rare star da njile fi ko yo bete sumore mes josu wang dai ma la giri mata wa ko mo xam ko wa ko mo xamuñ ko won ko da fi football bari wuñ ay man mata be ko mo xam giri para ñoo am 10 years ngay eh, ana, duma mëna walu bari because sumo nit la ci xalel ya be mak sen wakirip sun dara lañ jange magam yëpp suñ daara lañ jàngee ni mo waroon mel du ko mel di ko dafa ba du kat juri su doon bañ romano fi bu yaga di ko kuñ ne football ci africa war ngaa nekk leneen waaye dañ unfortuné judo fi biir su judoo woon sénégal ko cho comme ni ñoo wé e pele ko Sénégal yi boo ko mun dara peut être di nga gis lekkakat yi tëggakat eh, yi lekkee di dugg nga leen ci télé bi ñu ne leen promoté loo mun Sénégal dinañ la ekkati fa wutee Gambia biir yi ba mu demee Spain dama ko ne bu fi ñëwati di ko waru fi woon a ñëw nekkuñ ci benn compétition bu tax biir yi di daga tëgee di ñëw ay friend yi maaj ay youth week ay yooyu doo jël sa ko indi Salifou Keita Mali ba mu demee Spain ñoom ñoom biir ñoo fa nekkoon kenn déggaatu ko ci squati Mali bi amuñ tim bu ta muñ war a fay ticket di ñëw demuloo World Cup demuloo Cup of Nations so da ngaa yaaxa sa carrière te booy looloo yaaxa carrière man na dama mënoon a bañ waaye topp ma si bañ yaa bi dama ko topp ba tay mu bañ dafa nangu trop loo xam ne waru ko woon nangu Biri man su ma mënoon football si moom laa ko daan jàng bi moom moo daaxa football ci dëkk bi soo dama traîné moom saa yu nekk dafa ñu dee bokk waaye dama ko dee against su ma against du ma mën a traîné waaye su ma koy jàppee ñi ñi xam nañ ma amul kenn ku ma coog ki daa football ci dëkk bi maa ngi ko dee jàpp te du ma ko gaañ suma ko gaañ musu ñoo bokk team waaye musuma ko gaañ jërëjëf ko gaañ kii suñu rakk biir du ma mun a wax si moom di ko am na bëri du ko mun a wax waaye yal na ko yàlla xare àjjana ba pare julit la ñun ñoo juli fii dafa am pila bu dee toog suñ julee suba su fekkee fii la ayee naa ko fekk foofu ñu nuyu wante ajuma ñooy fu ñoo toog ak suñu rakk yi ñoom ibuloo ñoo dee toog benn saafe si ajuma ji dama la dee si jumaa loolu moom soo ko waxee oncle dinaa ko digal man biir yi dama ko daan dox Independence Drive mos every ajuma bu nekk pare ñoo daan julli gee fi ñaan wax njaayeen loolu moom jullit axan la mun a julli la seen waa kër yëpp jullikat lañ dafa yaroo ci daara te suñ sëriñ jox ko tur tur boobu moo ko amee suñ sëriñ moo ko waxoon aduna bi yëpp nañ la dégga te aduna bi yëpp dégga nañ ay yal na yàlla sàmmal leen na yàlla sàmmal leen yéen koo xam ne ah dafa naxaree wax ci mbiram wax ni teñis demee la biiri tey BBC moo waroon a wax biiri BBC ñoo waroon a wax ci affaire biiri su doon yeneen di kay yaa ngi di nga tor yooyu yëpp ci àdduna bi ngi wax biir Afrique yëpp waaye Gambie la waaye sant yàlla biñ amee seen façon yi am télévision waaw lu baax duñ ko nubaa lu baax duñ ko nuba fii dañ nuba yu baree bëree bëree bëri waaye sant yàlla ba xale li léegi tombé jamono googu yéen dimbale leen xale yi expose leen expose leen ñun amuñ woon loolu 1970 si lañ door common football fii ñun ñoo Real Banjul final la woon foos dee ñu common football fii Wali dan man bi duga gasikogo olviduga wali dan equalizing goal lao hame defender jeuf Mr sengor ni wenda la way nine la door jeuf Mr jere jere jeuf jërëjëf jere jeuf ah, waaw Ousmane sengor to sengor assalamu aleykum